te lay bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon. yaay boo ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay góor booy ñaa noppi na jaar fa doon jaar tey bés bi nag ngeen ko dundee tey ak moom. dinaa ba nu sant yàlla. julli ci Seydina Mohamed sang-sang yi. di am mbégte ak yaakaar ci kàttanu yàlla ak dooleem. te yàlla bu yaakaar tas lii nu mbébét nii yal nañ ci yàlla may ndam ci kàttanu yàlla ak baax waaj na ni ñu ko war a waaje def na lanu war a def jëf na lanu war a jëf yàllaa ci des te yàlla nu yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed Boy Niang tey boo ko doon seeree doom ju mel nan la ci yow doom ju sori ci man doom ju ma bëgg doom ju ma yërëm doom ju am fu ma teg boo ñaa dama koy ñaanal yàlla ci kàttanu yàlla ak bi yàlla na ko yàlla dooleel lépp lu mu sumb yàlla na oyof toy yàlla bu mu gis lu mu ragal ndax fa ma teg la fa teg fa baayam teg fa ay waajurum teg fay magam fonkuñu bëgguñu yu bëggul dara lu naqari lu mu daw suba ba ngoon ñun ñoo tax ay waajuram demul Paris demul fenn fenn fenn néegam a ngi ni mu jàkkaarloo heure bu xëyee def ak man lu baax def kook baayam léegi la jël kuy woo xam ne 200000 mayu la ko mu ne ma yaa jëla kuy bi maa la ko sarax yëkkati enveloppe boo xam ne baayam a ngi taxaw mu jox ma ko jox ko baayam suñu xol sedd guyi ci moom yal na ko yàlla kàttanal yal na ko yàlla may nag sama xol laa ko tibbata dina ko am ci kàttanu yàlla ak mbaax salari jiin bismillahi ma dee